aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina mawlana muhammadinil makin wa ala alihi wa sahbihi saridwaan wa tamkin salli ala xawsin wa xaysin wa xiyaas wa salli yaa man maa bi la piyaas salli ala albaalixi rooxil xaqi maa salaamin xaa idin lil xaqi barkib jaribatul maraaxib mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen ñaan a jàmm di ko saaxibal fadila wal wasila si Amadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom meeg fan gudd bu ànd ak wér ak mbooleem njabootu Serigne Touba si Amadou Mouride Mbenda Fall ñu ngi ko siyaara di ko ñaanal fan gudd ak wér ak mbooleem njabootu maam Sara Fall Baay Muridina waaye niki noonu ëtt bi ñu taxaw muy ëttub Serigne Ahmadou Nourou Diop di Kër Manumbe ñu gën koo xamee ci Madinatul Munawara waaye mu siiwee ci Kër Manumbe te Manumbe sancoon ko ñu ngi fi jàtt bi nag waaye ngeen dégg xale yi doon jàng léegi ñuy dëkk ci dëkk bi ay ay ay ay gone yoo xam ni seen yitte lépp ñu ngi koy jëmale ci jàng xasida ak alxuraanu karim kon mbokk yi xam ngeen ni eh, ñu ngi fii ci ëttub Cheikh du nuur sëñ Manaar sëñ Manaar mi nga xam ni moo liggéeye borom Touba ba borom Touba ko mu feeñee fii ci Husnul Mahab ñu ñëw fii ci ab ëttam xam xamle kan mooy jëmmi Cheikh du nuur kon bu ngeen toppee rek ñu wan leen mboolem lee arsi ci dëkk bi incha allah rabbil alamin jërë ngeen jëf Bamba moom neexul rëy sëriñ Manar Joob la mu bëgg woon Seex Bamba moom neexul rëy sëriñ Manar loroon alaano rëy ni Seex Manar bëgg woon Seex Bamba moom neexul rëy sëriñ Manar Joob la mu bëgg woon Seex Bamba moom neexul rëy gërëm ci yàlla ak yoneen ba ma gërëmal baay ba ak Seex Bamba sëriñ Bamba am na gërëm yàlla ak yoneen ba am na gërëmal baay ba ak Seex Bamba borom karaman be am na gërëm ci yàlla ak yoneen ba am na gërëmal baay ba ak Seex Bamba borom karaman be am na gërëm yàlla ak yoneen ba ñu ko waxoon léegi rek ñu ngi ci Kër Mandoumbe xër yi ñu dëkk cosaan bu yàgg fi ñu taxaw mooy poste de mooy case de santé bi bi nga xam ni fi mucc fi ngay mucc pare yi ñu laa si appel état rek di wax ni dëkk bi citoyen yi ñoo fi ne jaadu ñu am poste de santé bu gën a bii wax dëgg yàlla parce que ay jigéen ñoo fi ne ñoo xam ni saa bu jotee fi lañ mucc si ñu taxaw ak kenn ci waa dëkk bi mu Ibrahima Ngom ma yokk ci taalib si Mourou Gàtt <laughs> ñu ngi lay nuyu si mu ngi lay fay di la ñaan di la kii sa wàccuwaay. Mm-hmm. di leen ñaan di leen dalal jàmm. Mm-hmm. ci dëkk boo xam si bii ne. Mm-hmm. dëkkub wàccukaay la. dëkkub ñaanukaay la dëkkub teddukaay la. ni ko sunu mag ñi daa def rek di ñaan jàmm ak ju ànd ak xéwal. di ñaanal euh, sëñ Bara Diop mi nga xam ne mooy xalifa Kër Madoumbe. sunu borom yàggal ko suñ kanam. yàggal taxawaay bi. di ñaan xalifa kokki guy ko bopp ak bopp sëñ maam Ceeru Dégéen di ñaan xalifa sëñ Mahamad sëñ Mahamadan Diop bopp sëñ naar moom sëñ naar koso suñu borom yàggal leen suñ kanam di di ñaan la sëriñ Bàcc Diop bi nga xam ne moom la yàlla teg fii ñu dénk ko kër Mandumbe ñu koy ñaanal tamit nga xam ne si biir dafa ànd ak ñun lépp rafet nga xam ne si biir sëñ Bàcc def dara loo xam ne si biir maanaam ñun ñi ne ci dëkk bi ah, ah, du déggu du déggu ci ak ñun ñu ko ci ñaan nag ñu ko ciy ñaanal suñu borom maamam ju tedd ja nga xam ne mooy mu sëñ sëñ bu Ayubulaahi waaw xéewal gu gu sëñ bi sëñ bi amoon rek yàlla am gu ko raw su mbaaxu sëriñ Tuubaa doole sëñ Basiiru di ñaan di ñaan mbokki Kër Mandoumbe yëpp ñi nga xam ne fi leen cosaanoo ñu ñaan ñu jàppaat ci dëkk bii mhm. dëkk bi nga xam ne amuñu lu moom mhm. amuñu kudut ñu kudut euh, sëñ Ahmadu Nóoru mhm. sëñ sëñ Manaar mi xam ne si moom la ñuy wàajal ga fu ne te di ñaan nag suñ màggal googu passé ñu suñ borom defal ñu ban man koo def ci Kër Mandoumbe gii ndaxte mooy titre bi te ñun moo nga xam si biir ne mooy mooy li nga xam ne si bii ne moonu moonu yëtal ndax ñun bëgguñu lu dul ñun bëgguñu lu amuñu xamuñu lu ku sant Diop bëgguñu lu ku sant Diop moom rek la sun ñun saa boo ma woowee Diop laay wuyoo kii sama kuy sama kuy sama wasila mhm. mooy nekk sëñ Mouhamadou Gaddi Diop mhm. bam bam bam bam ba mu làqoo mhm. ma ma ma yeeslu ci sëñ Mouhamadou Fat Fadli Diop moom sëñ Modou Gadd di ko ñaanal wér ak yàgg di mbaaxu sëriñ Tuubaa doole sëñ Basiru di ñaan dëkk bii lu xéwal gépp suñ borom gën koo dolli gën koo gën ñoo taxaw gën a taxawaa dëkk bi gën a taxawu njaboot gi ci baaxu Sëriñ Tuubaa ah ñi ngi ñaan kaas bii nag moom état mu gën koo dolli ba mu nekk ab poste de santé ñi ngi ñaa ñi ngi ñaanal nag suñu meer bii fi nekk nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye Lamb mi ngi ciy jàpp lu man te ne dina ko gën a beesal ndaxte xam nan ne xam nan yéeneem xam nan pas-pasam ci nga xam ne si biir mooy sunu sunu sunu communauté daal bi yàlla noonu yàlla doole jàmm ak xéewal ak ak ak yi rafet na lool mu mel ni moom doon leeral dëkk bi wax na léegi dëkkub cosaan la cosaan kooku nag moo war a tax nu bàyyi suñu waa suñu lépp rek gën ko jàpp ndax tey jii ñun ñii xëy na suñu maam fi dañ juddoo ak suñu baay waaye bu ñu ñëwee yéen ñu fekk dëkk bi yéen ñu dal te kenn wërta nag sàggane ci cosaan kon ñoo ngi ñaanal ni nga ko waxee léegi sëñ Modou Gadd ma ci bar sax saa borom yokki leeram tas bu barkeem kon ni ki noonu ñu delluwaat xool yenn yi archives yi nga xam ni bokk na ci ñu war a jëlee Ibra Ngom day mel day wax guy gi nga xam ne moom la moom lañ jàkkaar lool guy gi nga ne Ibra Ngom luy cosaanam guy gi daal euh, ci bu ma xamee ba léegi si mhm. ci laa fekk sëriñ su baax si mhm. di fi nekkoon maam Samb ginnaaw maam euh, ba fekk li ma fekkee maam mhm. Samb ayib ak euh, sëñ Thierno Dégène mhm. ak sëñ Modou mhm. ba ci sëñ sëñ sëñ euh, sëñ euh, sëñ Baara mii mhm. ak ñi nga xam si moom ñoom la dénk dëkk bu buñ jullee ba pare fii la ñuy ñëw fii caatu gi fii nii laal ci seenu laal ci seenu fii tibb ci suuf si di joxe nit ñi ñaan est-ce que bu ñop bu noppee mu dénkaat taalibe yi day leen nañuy jaamu yàlla tey tey tey tey nay topp yàlla tey jul tey jaamu yàlla tey baaloon te àq tey tey liggéey tey tey moytoonte àq dëkkandoo saa su ne moom la ñuy ñaan ñu ngi sant Diop daal ci loolu dong la nekk ku leen topp daal moom ci li nekk mhm. jàmm rek nga yam macha na yàlla noonu yàlla dolli jàmm xew sutur macha allah jërëjëf jërëjëf kon guy guy guy cosaan la goo xam ni ne ko si Ibrahima leerale day mel ni kon mbooleem ñoom ñu fi nekkoon daanan fi jullee ba noppi mhm. waaye def ko nag toogaayu fàttali yàlla ah, ak Euh, ñaax seen i seen i waajur ñaax seen ñaax ah. kon day mel ni day niroog lool jaayante ba sama bay jaayante woon ak yonent Yàlla Muhammad ca ron garab ga kon ñoom bu ñu toogee fii mm-hmm. jëfal leen ay ñaan pare daal leen yedd mm-hmm. yedd leen daal leen sajox muy soññi leen ah. ci ni ngeen jaamu yàlla mm-hmm. na ngeen liggéey waaye ni ngeen moytu ak di ko waaw allahu akbar allahu akbar chaque chaque année jërëjëf suñ bàcc moom ba léegi si suñ bàcc moom lay mbokk ñu ngi taxaw ak Baye Modou Ndiaye Baye Modou Ndiaye di kenn ci dëkku Kër Mandoumbe di ab donga di taalibe macha allah jërëjëf xam lu bari nag ci dëkk bi macha allah ah, ok mu mel ni jàkk ji nga xam ne jàkkale joo xam ne sëñ Manar daan na fi jiite daan na fi jullee waxtu juróomi jàkk ji kañ lañ ko defar Baye Mouride ginnaaw bi nga nuyoo mbooloo. maanaam 63 la. 63 jàkk ji 63 lañ ko tabax. waaw. mu ne bari ko doon tabax ci laa bokk. ñi ko doon senge maak sama nijaay Aliou Ngom ñoo ànd senge ko 63. waaw 63 lañ ko sant si sama waaw moom moo am ci jàkka ji moom daan fi jiite wala. sëñ Minnaar daan na fi jiite daa daan fi jiite julli waaye maanaam jamono yooya. sëñ Mbët Jaxate moo doon imaam ji. waaw moo doon imaam bi. moo fi doon jiite Tabaski ak Kori. waaw. waaw moo fi jiite. bàyyi mu ndax kenn ci njabootu Sëñ Tuubaa mas naa ñëw julli ci jàkka ji. jaboot ak sëñ Touba. Mhm. ah sëñ sëñ sëñ Fallou de ñëw na fi. est-ce que sëñ Fallou ñëw na fi. Mhm. maanaam sëñ Fallou yor-yor bi mu fi jóge mhm. ah ci la ñuy ah, ah, ah, ruuxoon yem bi dëkk bi. ruuxoon. ruuxoon mag ñi ruuxoon mag ñi ruuxoon yem bi dëkk laata moo yegg kër ma ñaaw lay ruuxoon yem bi dëkk bi. yem waaw at mi mu fi ñëwee uh-huh. sëñ Fallou. Uh-huh. waaw loolu moom ci lu ma leer na fi la ma fekk na. waaw. ak ak jan doomu sëñ Touba moo fi da dox si wala réew lu mel uh-huh. uh-huh. ko fi. ay yoon ah, fi ay yoon. kon dëkk bi dëkk cosaan la. dëkk bi cosaan la dëkk boobu suñu tubaab fonkoon na. Uh-huh. sëñ Tuubaa fonkoon na ko ndax dañoo wax ne. la mag ñi wax moom fekkuma fi waaye mag ñi dañoo wax ne. jàkka ji. sëriñ Tuubaa ko di ca tànk mu tedd. ji ñu ñu waaw mag ñi nee dañoo am ab yoor yoor ñuy ñuy Ah, ah, wut am ngeer di ràbb jàkk ji bëgg bëgg jàkk ji dinaa sëñ Tuubaa jóge nii si yow jàkk ji daa mel ni jàkk ngeen di xalaat di ñu ne ñu ne ko waaw mu ne taxaw leen moom leen xibla gi moo ko rëdd ci tànk jàkk ji la mag wax mhm. ah, toog naa toog naa fii ànd naa fii maag Baye ñaaw ak sama baay mhm. ak sëñ Modou ak sëñ Cheikh ak Baye Cheikh nu mhm. julli fii tisbaar ba noppi nu julli fii tisbaar ba noppi Baye Modou Ayib ni ma ndey Cheikh ak Kabir mi ñeme na loo xamante bi ñemewuma. mu mhm. ngi dégg. waaw ah, ko lu mu doon mu ne di romb jàkka Sëñ Tuubaa julli di di di dem julli feneen man ah, xaw ko. bañ ko waxee sëñ Cheikh Kabir. Mhm. Cheikh Kabir daf ne. Mhm. ah julli julli julli julli ci ci ci ci jumaa. julli julli ci jumaa bokkut ak julli jàkk. julli jàkk julli jumaa uh-huh. waaw. Uh-huh. dafa julli ji woon deqale juma. kon deqale waa dëkk bi dañ ci jóge fii di dem deqale dafa julli juma dafa julli juma waaw kon mbokk yi war na kon juma ji ñu jàkkaar lool ñu fexe ba mu yegg loolu farata la ndax looloo waral eh, ñu ñu waa dëkk bi ñu mën a di fi jullee mhm. seen juma ajuma ju jot dañuy jóge fii di dem deqale di julli ci juma mhm. waaw dañ fi julli julli ji juma mhm. waaw waxtu noonu la ñuy def kon mel na ni kon ki yor liggéey jumaa ji des na ko saytu xol ko moom itam mu leer na ay kaddu ci jumaa ji ndax ginaaw ginnaaw jàkk ji ndigalu suñ jubaa la ji itam suñ jubaa la te jullit fuñ mën a ne daa jaadu ci ñoom ñu tabax jumaa ngir ñu mën faa joxe waxtu suñ borom waaye wax mën faa joxe fartay ajuma ji waaw kon loolu des na ko ci boole ci ci ci ci waxtaan incha allah Baye Modou Diop kan mooy jëmi sëñ Minaar bu ko doon sëñ Minaar fi ne mm-hmm. sëñ maanaam lan nga mën a wax kon ci sëñ Manal. bari na sëñ Manal moom koo xam la ndax bi may tuuti. Mhm. fii la la la la Daaru Xaaxam lay fajooroo ñëw taalal maam Samba mhm. taalam bi mu ciy jaaru may gis. Mhm. bu xëyee taalal maam Samba taalam bi muy mu di ci jaaru may gis. bala daanaka nun nun yi daal ak gone yi ak ñeen yi dañoo tëdd mu door ñibbi Daaru Xaaxam loolu la saxawoon maam Samba ba gisatu. sëñ Manar moom. mboolem maam Samba si jëlee woon ci sëñ Touba. sëñ Manar la ko jox ci lu ma xam. yoo xam ne ku ah booy booy boo nga booy boo mag la waaye ku ko rek. ci lu ma mën a waat sëñ Manar moom. Mhm. mboolem lu maam si jëlee ci sëñ Touba moom la ko lu ma xam. Mhm. loolu moom xam naa ko moom. Mhm. waaw. Ahmadou Nour borom jaami. kooku amul borom. ah man ba tey. waxtaanam moom moom moom moom waxtaan waxtaanu sëñ mhm. Tuubaa rek. waxtaanu sëñ Tuubaa rek waxtaan maam Samba Bousso. Mhm. loolu rek la daa waxtaan. Mhm. waxtu ne. moom la daa waxtaan. ak itam nag. ah gone gu toog fa moom. boo boo baree ree mu ne la bàyyi ree ree baax. est-ce am na fa sama sama morom moo xamante ni bii dafa bokk di nekk. dafa nekk toujours maa muy bari ree mu ne ko waay waay bàyyi sa ree ji nga lool. loolee topp na ko ba man la ma xam xam naa ne topp na. sëñ Manar moom du kenn. loolu alxuraan la bàyyi wala yàpp koo xañ la wala yàpp koo kese. moom du kenn. dee dee dañ jooy lu bari. waaw dee daal du néew. waaw waaw moom. Mm-hmm. amut morom. amut morom ndax dafa dafa dafa toppoon ku liggéey ku liggéey ba ñëw. Uh-huh. dafa toppoon ku liggéey ba ñëw. Uh-huh. maam Samba Moussa moom mu toppee ne nag. Mm-hmm. daana sama ndey daana daana daana taal ab laax. Mm-hmm. toggal ko ab laax. bu ëndi laax bi ak Ndiaga Ami mi bëkk dem mhm. ak Thierno Diouf. Mhm. doomi baayam. Mhm. fii la ko fii la ko oto bi fii la fii la ko oto bi fiire. Thierno Diouf. looloo nu tàggatoo ma man ak moom ak Ndiaga Ami. saa yu Moussa taaj laax bi bu bokkee moom na moom yéen a ngi yéen a ngi bokk ak man sama laax bi te bu ngeen am dégg xaw ma fu fu may fekk. maam Samba si wax na ma lii ba tàyyi. maa ngi Ndiaga Ami. kon jërëjëf mbokk yi mel na ni mag la. mu yàgg ak sëñ Manaam. yàgg na maa ngi moom. man de xam naa ne. Eh. bi muy am bi muy am njëriñ eh. bi may am njariñ fekk ko fi. Mhm. waaye bu mënuma mënuma julli mukk te jox ma ko jox jox ma ko. xalaatuma jullee ma ko gën ndax bu bu bu julli ba noppi maanaam ah, ci yàlla lay teg waa dëkk bépp ci yàlla lay teg waa dëkk bépp bu nu xëyee bu nu bu nu musaa xëy fee dem dem jëlee ko fa am may. Mhm. ànd ak moom ba ba julli fii ba noppi nu àndaat moom am may bu moom egg. Mhm. loolu moom moom ci lu ma leer la te it waxtaanu waxtaanu maanaam yàlla sëñ sëñ Tuubaa ak sëñ Samba rek la daa waxtaan ay waxtaanam yëpp moom sëñ Tuubaa ak sëñ Samba sëñ Basiiru ñett la ay ci la waxtaanam ëppoon booy boo nag ku mu neex nga weddi waaye ñett ñi seen waxtaan ci ñoom la ëppoon sëñ Basiiru sëñ sëñ sëñ mën naa sëñ Samba sëñ Samba sëñ ñi ci la waxtaanam ci lu ma xam waaw Ah, waaw waaw ana fi fanaan kay ana fi fanaan waaw fekk na ma sëñ si kër ma numbi xari kër maa ma numbi xari waaw bu ñu demee daal woon maa ma ma numbi waaw bu ñu nii moom waaw mën a war waaw waaw waaw waaw Daaru Xaaxam waaw am na seen ménage bu doon jógee sant bi tuddee. waaw waaw. ci ndigalu maam Samba. Baye daa mel ne ñu ngi seen ay xabru. muy ay armeel. armeel yi mooy yan armeel. yi mooy armeel yi kër ma numbe. Mhm. maam Samba soo fi tëdd ak maam Mor ma numbe xëri. Mhm. ak maam Matar Samba. maam maam Matar Samba mooy maam gàdd Mamadou Asta mooy wajuru maam Samba su. maam maam Mamadou Asta. mooy wajuru wajuru maam euh, Samba su ak maam gàdd. maam Samba Astou ak maam Gàdd ñoo bokk ndey ak baay waaw mooy yooyu maam Samba su mooy kii euh, fekkoon sëñ Tuubaa ah, ah kon fi la tëdd bu demee ma ne la ma ngi nii est-ce que saa yu ma xëyee ma ma ci moom la sëñ Musaa ak wax asaabu taqiyu al kukiyu mooy waxambaane bi nga xam ne war a yàlla lool te dëkk kokki jiit na sëñ Tuubaa ak julli ah, ci ah. ndigalam julli naa fi la kon mel na ni barab bii kon barabu maam Samba fi la tëdd. maam Samba bi maam Samba mi nag moo koy gis naa duñ bokk. ñoo bokk ndey ak baay mag ak rakk lañ. maam Mara maam Maraba Guèye. maam Maraba Maraba Guèye. waaw nii. macha moom itam bokkoon ci njabootu si mënaat. bokkoon ci mag mag yu jëm. ñu toppoon sëñ mënaat. waaw ñu toppoon sëñ sëñ. kon dañuy dégg ñëw ba ci euh, xabru bi ñu leeral nu ban xabru mooy kan ak kan mooy kan. incha allah waaye mu demee ni fi fi ñuy ni kon moom barab la boo xam ne mooy barabu kan ci ci barab yi. mooy barabu maam Samba. maam Samba Assa. waaw. moom moo topp woon Sëriñ moo maam Gadd. Mm-hmm. moo maam Gadd ñooy doomi ndey maam maam Thierno. Mm-hmm. kan. mooy Mamadou Asta Diop. Mamadou mooy wajuru maam Samba Assa. Mhm. ak maam gàdd mi jur sëñ mën a mhm. kon mooy ci maam la sëñ mën a waaw waaw mhm. waaw moo moo jur maam gàdd mi jur sëñ mën a ak maam Samba Asta bii est-ce que maam Modou Asta mii moo leen fi kon moom la si njëkk a denc waaw moom moom la si njëkk a denc macha allah Seex Bamba moom neexul rëy Sëriñ Manar Jóob lam ba jool Seex Bamba moom Seex Manar Sëriñ Manar nuurul alaano rey ni Seex Manar bëgge woon Seex Bamba moom Sëriñ Manar Jóob lam bëgge woon Seex Bamba moom Sëriñ Manar am na gërëm ci Yàlla kii mooy mm, sëñ Modou Ayib mooy caatu maam Samba mooy caatu maam Samba maam Samba soog noonu nag waaw moom mooy mooy mooy jëwri mooy jëwri ñi dëkk bi mooy jëwri ñi fépp waaw maam Samba moo nag ne waaw daal ñëw ne fii moom. Seydou Lat maam Samba Sow dégg naa ci làmmiñu sëñ Cheikh Diop mu ni bi muy dem sëñ Touba àggoon na ci maqaamam armée bi mu romb ñu jéggal ñëf waaye booba Sëñ Tuubaa moo woote di borom jamono moo tax mu ko boppam ndax kii am fu jàkkaarloo nii mooy Sëñ Samba xëri daam maam Samba xëri mii nag moo ko Sëñ Manaar lépp rak la ci Sëñ Manaar ñoo bokk Sëñ Moodu gàdd ak soxna Pend Sil kon mooy maam Samba mooy mooy Sëñ Samba xëri daam mi nga xam ni ñoom ñaar ñii ginnaaw bi Sëñ Tuubaa jugee ci géej la laaj siñ Sam Bass mu yóbbu leen ca fële ñuy woowee Touba fële ñuy woowee Darou Manane ñu jaayanteeg ma kon kii rak lañ sëñ Manar sëñ Manar bi nga xam ne nag moom moom bis bi ñuy woote waral ñu déplacé woo Touba ba ñëw fii ngir gëstu lenn ci ay cosaan kon bàyyi eh, Modou looy wax sëñ Samba kii sëñ Samba xarit ku jàmbaare woon mhm. ku jàmbaare woon ñëwee ab àll lool mhm. bis bi bi bi bi ko bi ko bi ko sëñ Manar di jëlee daal di jóob mhm. di ko yóbbu di ko di ko yóbbu kokki guy mhm. sama rakki doomi ndey la fa yóbbu la fa mhm. ne woon ca daar ji sama rakk doomi ndey ñu koy wax maa yee sin jóob waaw waaye ku jàmbaare la woon am saa ma xarit daal moom ku jàmbaare la woon moom ak jàmbaar laa xam ci moom moom waaw danoo danoo bokkutoo nekk daa nekk daa nekkoon daar jóob ma nekk man mu jóge daar jóob dem kokki Ah, ma ne kër ma numbe waaye moom ak njàmbaar xam ci moom ak fit sëñ Mbàcc bëkk démb nee ko boo nuuroo boo nuuroo sa maam Moodu sa maam Moodu ayib ñëpp dañ la waaye boo nuuroo boo nuuroo say baay kenn du la yab kon dëkk bi kenn du la fi yab Bamba moom mexul rëy Seex Manar Jóob la mu bëgg woon

bu jot fi la yendu mujjoon na sax mu def ñaari kër yi daaru xaaxaam ak penc kër bu mag bi di penc penc bu mag mi ndax li ma xam ci moom gis naa ñaar ñu yaakaar ginnaaw suñuy bakkan seeni way jur ku fii la wàcc soxna Aminata Mbacke moom sëñ Amar Fall Mbacke mi sëñ Baara Mbacke fii la wàcc soxna Muslim Mbacke moom Serigne Bassirou ak suma taar fii la wàcc loolee nag yàlla dogal na man fekke naa ko soxna Astu soxna Musli nag nganam fekke naa ci loo xam ne lii dafa dafa doy kimaan sax ndax man kat sama wayjur moom dafa diisut woon te moo doonoon Cheikh Ibra Faalum sëñ Samba Astu nam jàppee woon sëñ Samba Astu rek la jàppe Manaar nag muy xaritam ñu bokk euh, di taalibe ànd ca liggéey ba damay wax ne léeg-léeg may waxtaan ba yàgg ma ne Cheikh da ak ceexam da koo liggéey yàlla jox ko ko ci ak nangoom akuk taalibeem akuk woyofam ak bëgg sëñ Samba te sëñ Touba rekk tax Bamba moom fii ëtt la ci ëtt yi Cheikh Ahmadou Nour yi wala ëtt la ci ëtt yi Sëriñ Moussa Mbosso yi wala ëtt la ci ëtt yi Mame Mandoumbe xër yi borom kër Mandoumbe néeg bii sama gannaaw nag wax nañ ni ku tedd ki borom Touba mi ni wajaal bu yuuti kullaha masajida yaanaa xeen malam yàkkoonu sajida yàlla yàlla nag ma defal sama néeg yëpp muy ay jàkka yu ñu jaamu yàlla néeg bii Sëriñ Touba ñëw na fi dugg na fi kon dañ may topp rek ñu ànd ak sëñ ñaaw caw dugg ci néeg bi wax lan moo histoire néeg mel ni néeg yi néegu barkeelu la boo xam ne Serigne Touba ñëw na fi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu jógee géej gi la fi ñëw wala lu jur géej gi la fi ñëw. man nag du muy ñëw fii. bu fekkee ne yàlla dogal na ma ñëw jamono itam. booba tuxut man ma fekkee bis ba. maa ngi woon ci ndigal li. ñi nga xam tey yaat booba jamono maa ngi ci àll bi topp ci ab jur. di sàmm di leen wëlbati ndax bañ a yàqal kenn. mbaa bañ ñu réer. waaye nag dégg naa ñu ne fi sëñ bi ñëwee ah, yàlla dafa dogal fekk xam naa jamono bi demee woon nu bokkul ak eh, yoon bu njëkk ba ah, fekk tax bi mu départ nag ba dem la ginnaaw la ko sëñ bi eh, toppi na bu ñu dellu si waat rek ba jaaraat fi léegi fekk eh, ki war doon kilifa gi dëgg nekk kooki guy mu jàll kooki guy defe naa ko guy la départ jëm euh, Daaru Salaam aw yi tamaaka waaw loolu daal dégg naa ko moom bu yàgg sëñ bi wax dëgg yàlla ay jaar-jaaram moom euh, mënuma cee sori bu baax a baax moom maam si tubaab fii di kër woon mi rek moom la jot a dégg te fàttee guma ko ba tey mi ngi saam xol mi ngi saam xel te duma si yóbbu mukk li fekk ma di ko mën Baye Modou kon ba ñu ngi ci néeg bi nga xam ne borom Touba ñëwoon na fi mbokkam ma sam sëñ Samba Su boo doon wax ci digg sëñ Tuubaa di kon ñaata fan la la am ci nekk bii ñu nekk fukki fan ak ñeent daal dégg naa ne am na ko fi saa yoo xëyee fab ci kaggu gi dem ba ca guy guy gu maggee guy gu maggee mu dem mu toog ko jàng la muy jàng loolu dama waaye dégg naa ko mag ñi wax nañ ko waaw fukki fan ak ñeent am na ko fi yoo xam ne mu xëyee day fab ci kaggu day taan ci kaggu gi lim soxla dem foofa jàngi waaw loolu de moom dégg naa mag ñi wax waaw fukki fan ak ñeent xam naa mag ñi mag wax am am na luñ ci xam waaw fii doon nekk si ma naan ànd na fii saa yu tabaski amee fii la ñuy jëlee ab mooy bu ànd moom dem ba ca jàkka ja ñu julli ba noppi ñu àndaat àndaat ak julli jël ab mooy bu ba egg fii ñu reen di nu war a dem ba tayyi nag ba tayyi manaat bëgge woon Seex Bamba moom neexul rëy sëriñ manaar Jóob lam bëgge woon Seex Bamba moom neexul rëy sëriñ manaar loror alaano rëy ni Seex manaar bëgge woon Seex Bamba moom neexul rëy gëstu gi ñuy gëstu lenn ci cosaan yi Cheikh Amadou Nour gën a siiwee ci sëñ Manaar teen bii ab teenam loon boo xam ni ci la daa jëfandikoo ci mboolem lim daa jëfandikoo ci wàllu ndox mooy teen bii ñu jàkkaarloo nekk noonu xam ngeen ni fii nag mooy xasunul maab ñu gën koo miine ci daaru xaaxaam daaru xaaxaam mooy bërëb bi ñu ne jàkka ji ñu jàkkaarlool moom itam jàkkale joo xam ne si manaar daana fi jullee juróomi waxtu yi këram gaa ngi nii nag ngeen jàkkaarlool kër gi nag kees gu mag a mag la waaye fii la nekkoon nekk fi ak donga yi ak njaboot yi doon liggéeyal yàlla ba ni ko suñ boroom tuxale mu jóge fi ñu ñaan yàlla taas ñu ci barkeem di yaay mu subhaana alayhi salaam tey jii nag sëñ Baara Diop mi yëpp xalifaam moo taxaw ki ñu wane dunduk sëñ Manar yeesalaat ko ba taalibe ak njaboot gi ak mbokk yi maanaam miin kan mooy sëñ Manar ba ki nga xam ni moom la waykat ba waxoon ni bëkkum gërëm yàlla ak yoneen ba ko ko liggéeyal faaw yàlla fay la yal na yàlla fay ci taas ci barkeem bi yaay Musaa alayhi kon fii mooy pàkku Sëñ Manaar bi nga xam ne ginnaaw bi mu jugee kër Ndoumé gu mag gële ci ndigalu Sëñ Samba su fi la sanc ñëwoon fi ak donga yi di leen tërbiya di leen defar comme ni ko sëñ Moustapha Diop Alkoki yi waxee sëñ Tuubaa moo ne ko defar naa la ba koo defar dootu yàqu loolu baat bu foor la bu rëy la mboole ñu baax ñépp nag fii leen daan nag moom fii moom fii mooy mbaar mi nga xam ne moo ci buntu kër bi lii it am néeg la boo xam ni jëmbun ni ci néegi Cheikh Ahmadou Nouri ci lay bokk boo duggee nii it am na it lenn ci ay néeg yi itam loo xam ne néegi cosaan la boo xoolee bâtiment yi ni mel nga xam ni néegi cosaan la daal ci gàttal mooy Cheikh Amadou Nour suuf si la nekkoon di fi liggéeyal yàlla waaye Cheikh Amadou Nour fii la doon jaamoo boromam Cheikh fii ku fekk na ko fi mboolem jabaru Sëñ Tuubaa yëpp fekk nañ ko fi wax nañu Cheikh Fallou Mbacke fekk na ko fii wax nañu Cheikh Abdou Khadir ñun fi yoon yoon si Mourtala wax nañu ñëw na fi mboolem ñi nga xam ne daal mooy njabootu sëñ bi wax nañu fekk nañ ko fii ci pàkkam bi di xosul maap ñu gën ko siiwee ci daaru xaaxaam loolu daaru xaaxaam nag mag ñenn ñi waxoon nañu daa amoon ab xaaxaam bu bari bu fi ne jamono ñu koy seet Seex Bamba moom neexul rëy Seex Bamba moom la am na gërëm ba yàlla ak yoneen ba am na gërëm ba tey mbokk yi fi ñu taxaw xam ngeen ni mooy daaray cosaan ji newoon fii ci Kër Mandoumbe daaru xaaxaam ñu gën ko miinee xasun mbaab daarul xaaxaam ku ñu wax sëriñ Mut Jaxate moom moomoon daara ji daa fi jàngal alquraanu karim ñu ko waxee léegi rek nga xam ne dëkk bi dëkkub alquraan la dëkkub taal jàng la lépp ci kaa ngi fii lañ jóge fii lañ jàng alquraanu karim euh, ginnaaw bi nga xam ne nag euh, jóge na fi moom suuf si féete nii ngeen gis Molier bokk ci daara ji dongob sëñ Manar di taalibeem si Abdoul Ahad Diouf moom la ko Cheikh Thioro Fallou Diop Manar jox moom itam moom yéene yeesal daara ji ñu koy ñaanal borom bi barkeel wërsëgam yokk ko ba mën ko yeesal ba ba liggéey bu ñëwee dañu taxaw jàpp ci donga yi di leen tariloo alquran wala di leen jàngaloo xasida kon fii daal lenn la ci cosaan yi nga xam ne ba tey ñu ngi ci Kër Mandoumbe fële ñu jàkkaaroo itam xam mooy teen bu mag ba nga xam ne tamit dañ ko fee bën noonu ngir waa dëkk bi dëkk bi dëkk bu bari woon ay nit la waaye lépp ci nit ñi nag léegi ñu ngi Touba ñenn ñi ngi fa den sopp waaye nag ñu ngi ñaan rek desit yi yi fi nekk desit yi dund te muy cosaan di si Ahmadou Nour yàlla subhanahu wa taala dolli ko barke fam nekk ci ma Muhammadiya dolli ko tawfiq waaye ñaanal seen baara alxalifa si ama Ahmadou Nour borom bi subhaanahu wa taala am nañ ko gudd fan wér gëram def nañ nga xam ni yilif na dëkk bii lu yàgg yàgg yàgg yàgg saa borom yokk ay leeram te bar sàkk incha allah rabbul alamin nekk noonu ñuy ñaan mboolem jabar suñu Manar yi nga xam ne jiitu ji nañ borom bi subhaanahu wa taala may leen àjjana yu kawe jéggal leen seen i seen i ñaawteef barkat Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Bamba moom neexul rëy loolu ala loolu ni Seex Manar Sëriñ Manar Jóob la yi kan lañ ko taxawal ak it lañ mooy mébét waa dëkk ci jumaa ji incha allah asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu eh, di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay bu ma sëkk di am mbégte bu rëy nag ci ñëw bi ngeen ñëw fii ci kër Mandoumbe Khary mhm. ñu ngi ciy am contentement bu mat sëkk mhm. di leen ñaanal rek suñu borom def leen ay tawfeex te li ngeen ciy séentu mhm. ba tax ngeen dox tamit ngeen am ci lu kawe seen njot ay jumaa ji day moom ñu ngi ko tàmbali mën naa ne presque ci euh, année deux mille dix-huit waaw boobu ba léegi daal euh, ci lañ nekk euh, di ci nab na bi nii rek waaw ba yàlla dogal ñu toll ci kuule ko ba mu raase nii. Mm-hmm. gis soroor bi aussi jóg na. Mm-hmm. waaye moo nekk nii daal fi nii daal. Mm-hmm. yëfi kër mu ba yëpp la ndax. dëkk moom boo fa demee nga gis fa néegu suñu borom. Euh, day gën a jëmmal dëkk ba. te dëkk cosaan la. dëkk boo xam ne dëkku ziar la dëkku mag ñu baax ñi la. waaw foofu daal lañ fi tollagum. naa di. yitey waa Kër ba yëpp rek. Mhm. di leen ci dolliwaat di leen woo. Mhm. ci gën ci jàpp. Mhm. ba yàlla def aussi mu àgg ci jàmm. te it waa yàlla na ko ñëpp fekk. kenn ku nekk yéen a ji ngi ci am tamit yàlla na lu ko suñu borom defal. waaw man nag mën naa ne la daanaka. maa nekk trésorier bu ju bu jumaa ji ba fi mu toll. bi ñu koy tàmbali di muul ba ni mu toll nii. dërëm bu ci waayu dugal ci sama loxo bi lañ ko teg. waaw waaye nag euh, ci biir loolu. Mhm. Euh, dañu nekk ci benn groupe boo xam ne mhm. groupe WhatsApp Touba Kër Mounoumbe la. Mhm. ñi nga xam ne ñu ngi ci groupe yëpp. xam nañ ni nga xam ne noonu la jumaa ji dox étape par étape. xam nañ ñëpp ni muy dox ba fi mu toll nii xam nañ ni muy dox. Euh, sëñ Ibrahima ma laaj la foofu ndax di ngeen topp bi ay sas yoo xam ne leen ko sas ñu dëkk ci dëkk bi. wala lan mooy indi financement bi nga xam ne moom ngeen tabaxee tabaxee jumaa ji. Euh, financement bi nag. maanaam euh, ci njëlbeen nga mi ngi doore woon rek ci ay gone yu doon ànd. Mhm. comme man mii ak sama yenn ñi ma moromandel mhm. ñu defoon benn groupe. Mhm. doon ci def ay cotisation cotisation tamit dënnu woon sas bu nu sas kenn dañ ne woon kenn ku nekk rek loo am nga di ko dugal. yéen jin ci amoon sax nag. dañ ne woon rek nañu miiree waat jumaa yi kii jàkka ji fi nekkoon. waaye biñ ko lancé xeet gi ci nit ñi xeet. ak ni ñu participé ci lañ demee rek ba ne léegi daal dañ mhm. bàyyi miire bi te def taxawal taxawal lu ñuy wax juma loolu moo indi loolu waaye amul benn sas nag boo xam ne nee nañ nag kii joxe lii kii joxe laa eh, eh. waaw noonu daal lañ ko doxe woon maanaam kenn ku nekk daal ni nga mëne rek noonu ko ko doon joxe ba fii ñu toll fii ñu toll mhm. ndax am na yenn autorité yu nekk ci dëkk bi wala yu nekk ci village yoo xam ne ñoo nga jàpp leen si jumaa ji nga xam ne nekk yàlla waaw autorité day mhm. maanaam ki nga xam ne moo fi nekkoon maire di Alioune Aïdara Sylla mhm. wax dëgg yàlla ci njëlbeen nga bi ñu defee pause bière bi mhm. bokk na ci njëkkati woon cinq tonnes ci maa wax dëgg yàlla dugal ci macha allah waaw kon ñu ngi profité ci occasion bi di ko sant mhm. di ko gërëm te di ko ñaanal képp koo xam tamit am nga yéene dugal dugal ci tamit sa kii moom ba léegi ñu comme ñu ngi en cours des na lu waaw ñu ngi waaw des na lu bari waaw. waaw noonu foofu daal kooku daal lañ fi gisagun uh, koo xam ne autorité la. Mm-hmm. ku ci dugaloon loxoom am na ci koo xam ne aussi tamit. Mm-hmm. Uh, moom it ab uh, politicien la woon. Mm-hmm. ñu koy wax sëñ Maxtaar ak Kim Diop. moom it wax dëgg yàlla yëkkati woon na fukki junni. jamono yooyu nga xam ne moom lañ defoon campagne électorale campagne. municipal bi woon jàlloon. Mhm. Euh, dugaloon ko ci wax dëgg yàlla. ñaar ñooñu daal laa ci xam ci autorité yi di dugal seen loxo. Mhm. mbokk yi jërë ngeen def kon mhm. mbokk yi tund wi rawatina tund kajoor wi ñu ngi leen di wax ni lii ab liggéey la. jot naa Kër Mandoumbe ñàkkul dara. am na ñu boromi xaalis. ñu ngi koy lancé appel ñëpp. alaaj Ndiaye Guèye Touba Sandaga. ñu ngi lancé appel ak njabootam. alaaj Yann ma ñoom ak alaaj Samb Guèye mi nga xam ni daa bàyyi léppam ànd dëkk si ak ma manaam ànd dëgg si ak si Samba suba baraba ma nga nee ci armée la kon nag njabootam mu ñoom Habib ak ñëpp ñu ngi leen di woo ci jumaay yàlla ji nga xam ne jaadu na def ci ay ay ay ay wax ngir jullit ñi mën koo mën koo mën mën cee jëriñoo. fédération Cheikh Ahmadou Nour bu mag bi muy fédération bokk nañ seen objectif mooy tabax këru si Manar gi waaye tabax jumaa ji itam bokk nañ seen objectif. ba ñu xool ni leen ni kat jumaa ji am nañu ci nekk kon ñooñu itam ñu ngi leen laasee ni leen lu ci waay di def bisimilah jumaa jaa ngi nii kon yan kàddu ngay tàggoo ci sant. Uh-huh. di sant aussi tamit ñëpp rek di wax comme ni nga ko waxee eh, jumaa jaa ngi nii di néegub suñu borom di loo xam ne lu ci waay def aussi sa bopp koo defal eh, déggoon naa ci benn mu bu baax di ma Mahmadan am sëñ naar kaso yàlla ko yàlla yàggal mu ne day nekk fi ba ba di fi jóge yóbbaale sa yëf moo gën nga dem di ko bàyyi ko fi loolu nag ab euh, ay wax la yoo xam ne soññee la quoi maanaam loolu boo ko déggee mooy fa ñu jëm nga def fa loo xam ne eh, da nga ko faa yóbbu. Mhm. avant nga fay dem. Mhm. te lii bokk na ci mhm. maanaam ah, tegtal yooyu. kon loolu ab uh, appel la boo xam ne ñu ngi koy lancé ñëpp. di ko lancé aussi tamit ñi nga xam ne aussi ay autorité lañ te nekk ci tund bi. ñi nga xam ne ay autorité yu bees la comme maire sortant bi fi newoon ni mu defoon. maire bi nga xam ne moo fi nekk te maire maire bu bees. di Cheikh Ibrahima Ndiaye Lamp. xam ne nit ku baax la aussi tamit moom ñu ngi koy lancé appel moom it. di ko wax ne lii néegub yàlla ko ci ñaan ndimbal di ko ci wow mm-hmm. di ci woo aussi naataangoom yi nga xam ne ñu ngi ci tund bi yëpp mm-hmm. ak euh, képp koo xam ne aussi tamit ay bon volonté nga boo xam ne mën ngaa def sa loxo ci jumaa ji mm-hmm. suñu borom euh, def mu sotti ci jàmm te ñëpp fekk ko comme ni ma ko doon waxee nag euh, tey jii mooy wax ak yéen jumaa ji fi mu toll ak li fi nekk ci ay koppar ci li fi des ñi ci groupe bi ñëpp xam na ndax nin baaxoo di doxee mooy képp koo xam ne dugal na ci dërëm li ñuy njëkk a def mooy génn situation biñ mujjoon a def ba ñëpp gis ko ñu doog a dugal loolu ne leen lii fi nekkoon lii ci dolleeku kon li fi nekkoon lii la ba ñëpp xamandoo ko noonu fii may wax yow nii mhm. euh, li tax mu taxaw mhm. maanaam li fi nekk ak li nu war a def dafa xaw a sore ndax tey mën nañ ne bala ñoo raax il faut que ñu def ay bunt def ay fenêtre ak ay giréeg yooyu te tey bi ñu defalee devis rek biñ xoolee li ñu dese ci suñu kees ak devis yooyu dafa xaw a wuute te loolu aussi tamit il faut que am leneen loo xam ne mooy tax nu mën a soobu ci liggéey boobu kon nag appel la boo xam ne ku xamutoon lu tax mu taxaw kon xam nga ne loolu aussi ci la bokk ñu ci lancé it appel ñëpp waaw ndax kër mun bi wax dëgg yàlla duñ tee def jumaa dem ba yàgg muy taxaw dem ñetti at war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax te dara gënu koo gënu koo gënu koo nekk farat waaw loolu daal moom li ma doon tàggatoo di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal ñu ngi leen di siyaar ak a bégee ci dikk gi ngeen dikk fii ci kër Manoumbe ci bisub Cheikh Ahmadou Nour bu tedd bi ca nag di xamale señ sëñ Banaat bi moom ñun ñun ñun ñun waa kër sëñ Banaat yi rawatina waa kër Cheikh Ahmadou Kabir Diop daanaka sun bisu boppam ndax sëñ Banaat ci wàllu boppam bi muy bi muy ñëw bi muy yóbbu sama bay njaareem bay laat sëñ Banaat nee na lu ma def waxtaan naa ceeg soxna Asuma Taat Diop ba mu des indi gi may indi Amar njaareem waaye nee na dafa bëgg bu ko sëñ Bachirou soxlaa mu teel koo gis bu soxlaa sëñ Bachirou teel koo gis ñun loolu moo ni indi njaareem ci gàttal daal ba nëgë ci ay bëkki néeg leen ci nga sëñ Manar Diop kon nag ñi ñi ngi ñaan màggal gi ñu jëm di ko màggalee Cheikh Ahmadou Nour Diop ñun ñëpp ñu fabu ci kenn rek def muy sa bisu bopp ñi ngi ñaan na woyof yàlla nañ ko yàgg teewe Eh, yàlla ci yàlla def ay tawféex yoo xamante ni incha allahu bis bi day gën di jëm rek ba ban koy mën a defee Kër Mandoumbe incha allahu. sëñ Manar nag euh, ni nga ko waxee xam naa ne at yi taxu koo bari waaye daal maam gàdd daal mooy waajuram maam gàdd moomu di di waajuru di waajuru itam sëñ Samba Xarit Daam waaw boo déggee gàdd Astu Balla ak Samba Astu Balla maanaam gàdd mooy waajuru sëñ Manar ak sëñ Samba Xarit sëñ Sambostu moom itam moo jur sëñ Thierno Dégg nag sëñ Mouda bi ak euh, sëñ Mbacke Diop mi doon dem taawam ak soxna Fatou Samba mii mi sëñ Touba yoroon bokkoon ci waa Barsàq sëñ Manaar lim am da koo jënd ba mat sëkk ndax sëñ Sambostu waajuram ma waaye nag baat bi ko sëñ Touba wax ne ko euh, seen mbir yëpp bi ci seen waajur yi bu ngeen demee ngeen bu ngeen demee sax ci ay ndigalam te bu leen nekk lenn lu mu leen di tere ci loole ci loole ci la nekk daa ñëw takk laxasaay doon bàyyi faalu sëñ Sambostu doon bàyyi faalu kër Mandoumbe xëri boo déggee ñu naan euh, général daanaan sëñ Manar mooy généralu kër Mandoumbe loolu la yàlla dogal ndax la dale ca Mandoumbe xëri ba ñëw ci moom li fi jaar ci sëñ kër Mandoumbe bari na lool ñi doon ay waajuram bari na lool waaye nag loolu nga wax léegi ne bu fekkoonte lu nuy jaayee moom da ko lu ñuy jaayee moom sëñ Manar jënd na ko kon nag sëñ Manar moom kenn la woon ci kër Mandoumbe xëri ndax fii jamono tollu rek foo dem di fa tudd Euh, bu fekkee bëgg nga ñu gaaw laa xam rek neel kër mu ne mbég sëñ Manar Diop loolu la yàlla dogal euh, sëñ Naar ko sa Diop waajur sëñ gan bi mu ne la wetu ko yàgg yàlla na yàlla yokk leeram am na benn bis mu ni nett li naan na ngeen yéen ndaw ñi na ngeen góorgóorlu pour dëggal li nga wax léegi rek ndax ngërëm kët ngërëmul waaju baax yombut te ku ko am sa mbir baax ba faw sa mbir duutu dellu gannaaw ndax nee na sëñ Manar nee na daa taw ba tooy waxtu ceebu nee na fajar jot mu jóg soññi fere yi ci kër gi yëpp ñu takku takk fas yi sëf jiw wi maanaam ñu ànd dem ba ca foofu ma lay wax ci ginnaaw daaru Jóob ci wetu daaru Musti tooli sëñ Samba suñuy wax tat boo gel nee na faja nee na ñu fajaru ji gerte gi euh, raadu ko maanaam te bët setut te moom moo daan jëm xam moo doon jëwriñu tool yi nee sëñ Samba su julli fajar ba noppi takkalu takkalu fas yu war daal di wuti tool yooyu ñuy wax tat boggen nee na ba mu demee daa ñeenti xiblay tool yi fenn fu ne mu dem fa daal di ñëwaat ci digg tool bi daal di woolu sëñ ma nee na bi mu ñëwee xam naa xolam sedd ci liggéey bi ndax pëstéef bi ñu ko defee waxtu woon jóg ji tool bi ba raadu ko te bët setut xam nga loolu jëwriñ ju ma jëwriñ moo ko mën waaye nee na ko wool ba mu ñëw nee na mu ne ko ahmadou jërëjëf ahmadou jërëjëf ahmadou jërëjëf ba muy ñetti yoon sëñ naar koso mu ne jàpp na ne ma naar lu mu am rek foofu la ko amee kon nag ñun ñun ndaw ñi war nañoo topp suñuy kilifa te dégg ndigal te wattandi tere te xam ne kilifa euh, noo mën a mel ci agronom rek ngay mën a nekk kon nag déggal sa kilifa ak yëkkati sa kilifa dana taxa dana dana taxa yëkkati ku jëm kaw te ngërëmul kilifa lu am solo la ndax dana wax ne kilifa boo nekkee moom bu la gërëmee su yàlla dogalee nga njëkk koo faate dem àjjana solo la fi bàyyee nga am barke loolu nag mu ni su ko romb kon nag sëñ ma Manar moom jenn jëm rek la <laughs> jenn jëm la rek ci kër ma ndumbi xarit kon nag ñaan yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci ay barkeem te ni ma la ko waxee gis nga liggéey yooyu mu daan liggéey maanaam sëñ Samba Su nekk na kër ma ndumbi lu yàgg gis naa ko ci mbindi sëñ Muudu Abib nga xam ne bu jamono xaritoon dinaa la ko wan ndax bu masaan bay ba noppi addiye ji ak lépp sëñ sëñ Manar dem njaareem di ko yóbbu waaw di maanaam ci sëñ Touba waaw waaw waaw xasida woon ci sëñ Sam Bastu nga xam ne bii ne sëñ moom bi mu xasee jógee ci sëñ Touba ba ñëw ba ànd ak njabootu maam gàdd gi muy sëñ Manaar sëñ Sam Xaram dem ci sëñ Touba mu joxaat ko mu joxaat ñi ndigal na leen dem dem tërbiyewu ji eh, seen mag gi maanaam sëñ Manaar dafa dégg baat boobee ñëw doon jëwriñu kër mu ndumbi xëri doon jëwriñu tool yi ndax sëñ Mourad bi nee na sëñ sëñ Manaar moo fi dàqoon a jàng xasida bu guddee ci keesu suñu sàmb astu gi lay bàgg di jàng xasida ba bët set maanaam balaa nit ñee yeewu fekk mu lay kees gi di ko di ko tonni ci mbubbam di ko tuuri sëñ Modou bi mu nee na waa juróomu jigéen ñi soxna Ndaak si la nee na ko maanaam xam nga sëñ mën naa bi ñu ko sancalee Daaru Xaaxaam nee day def euh, bu bu demee Daaru Xaaxaam balaa yegg sax ndab dab ko euh, ndaw dab ko woowaat ko nga xam ne daw noppalu ci benn yoon nee na soxna Ndaak si daan ne ko daan ne ko sëñ bi de war ngaa noppal sëñ mën naa ñu sonn na mu daane ne ko euh, maanaam dana gën a sonn ndax mboolem li fi ne lépp ci ay loxoom la jëm <laughs> loolu nag loolu nag am njàngat la moo tax ñun ñëpp nañ gën a góorgóorlu nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax sëñ Manaar sëñ Manaar day jénn jëmm daa doonoon kenn nooru boroom leer loolu yombut ndax euh, barab bii ma nekk rek. mas na maa am gan goo xam ne ci at yi la ñëw fa ñëw fi boobu ay jamono yi am na lu xewoon ci jamono ji lu mel na ay takk yoo xam ne dañoo ñëw fanaan fi fii ci kër gi ndax waroon a yor kaaraange loolee loolee xew ca li waroon xew ca bis booba waaye nag ay làkkat lañ bin fi fanaan bi nu fi ñëwee ba timis jot néeg sëñ Tuubaa bii ngeen dugg léegi nga xam ne bii yéen a koy gis ci image yi mu ne ma damaa bëgg a ku takkusaan ma jox ko satal mu jàpp ne ko leeral ko néeg bi ne ko fii daal mooy kàggu ma ndumbe xër gi fii la sëñ Tuubaa ñëwoon mag ñu baax ñëpp jaar nañ fa leeral ko li fi ne bi mu reeree ba noppi mu ñëw gis ma ne ma ma ne damay teel a jóg ndax man ñeenti waxtu lay jóg ndax fii bu fajaree ndax dinaa fi mën a dugg def fi samay naafila ak samay wird ma ne ko waaw loolu kay mën naa nekk bi ñeenti waxtu jotee mu jóg nee na di julli ba di jullee ko ba julli ba julli suba jot ba mu ba noppi nee na bi ma tàllalee samay loxo ci fajar gi di ñaan sama soxla boobu nag euh, menn moom rek a fa ne nee na ak leer ak ak ak leer a ko feeñu ci néeg bi daan ne ko man la nooru borom leer waa waajee ma ko wax de am na ñoo xam ne nett naa leen ko ci dëkk bi te li ma lay wax yàggut bi xëyee nag wax ma ko ñuy waxtaan moom yàgg mu ne ma ah seen dëkk bi kéemaan la de ma ne ko ah waaw loolu moom lu mu demee noonu mu ne ma dëkk dëkk bi dafa am ko tuddoon nooru borom leer ma ne ko bi ma ko waxee ma it euh, ci jikkoy dongay daara mayit ma ma ne ah borom leer ndax bëgg koo xëcc pour mu gën a wax mu ne ma biig bi ma biig bi ma jullee ba noppi bay ñaan bi ma tàllalee samay loxo nooru borom leer moo taxaw ci sama kanam ma ne ko ah loolu de moom am na ndax nooru borom leer di mooy sëñ manaar <laughs> ci loo xamante bii ne kooku ab joolaa la nekk ab takk der yàllaa di defoon mu fanaan mu yàlla def mu fanaan ci barab bi rek kon nag sëñ manaar moom yàllaa ko yàllaa ko melal ni mu ko melal nitug nitug yàlla piir la ku baax la nit ku bëgg lu baax la waaye boo xoolee njabootam gii rek xam ne sëñ Manar jenn jëmm la sëñ Modou Ibe daana wax naan euh, yéen ñi fekkewut jamono sëñ Manar day bu ngeen xamul sëñ Manar bu bu ngeen gisee sëñ Cheikh Kabir gis ngeen sëñ Manar te lewet ga ca tabe ga ak maanaam fu jaar yoon wa day yeex ndax nee na du romb gone gu ndaw du romb kenn sëñ Modou Ibe daana ma wax loolu kon nag moom jàmbaar la woon euh, turam wi moom da koo da koo liggéey liggéeyal ko nag waa waajuram sëñ Samba Astou ah doonoon taalibe doonoon murid saarix boo xamante bii ne képp ku ko gis rek da nga xam ne nitu yàlla piir a ngi nii ndax kër ma numbe xëy yóbbu na ko foo xamante bii ne tur suñ manaar yóbbu na ko foo xamante bii ne loolu àdduna sépp teg nañ seen bët waaw loolu nag dañ ciy sant bu baax sëñ Modou Habib daana wax na moom itam bi sëñ Samba Astou nelawee boobu ay atam taxu koo bari waaye sëñ manaar a ko jàppale taxawu ko ci lu baree baree baree bari ndax nee na fu masaan di dem Kaolack wala fu mën a doon da ko daan yóbbaale da ko daan yóbbaale su julli jotee mu ne sëñ Modou Ayib génnal jiite mbooloo mi ba boo gisee dalub sëñ Modou Ayib bii mu amoon ci daaru mi da ko waxoon nag yow sam néeg na féete fii ndax man kat mag laa te sawaruma waaye nag saa bu julli jotee rek nga génn jiiteel ma mbooloo mi xamale ko ñu bare baree baree baree bari ba moo tax fu mu masaan toog rek da daan waxtaan ci moom da daan toog ba mu yàgg mu daan ca sëñ ma naar ma ne ko maam loolu lu mu doon ma ne ma jëmm jooju maanaam ku ko xamul rek yaa ko waaye jenn jëmm la ci kër ma kon nag yàlla na ko yàlla yokk leeram fa mu tëdd di sant ñëpp itam euh, siyaare sëñ Baara Diop ñaan yàlla yàggal ko fi tam wér ndax ku xool li mu def bërki démb ci korite gi xam ne danoo ñewenti ñun njaboot gi waaye fi nga magam tollu mu départ Touba ànd ak li ëpp ci njaboot bi ñëw yendu kër ma maam fanaan kër ma nu xir yendu fa loolu loolu mbir mu rëy la kon nag euh, bis bii ñu dëgmal ah, nga xam ne moom lañuy wootee sëñ Manaar sëñ Baara di ko wootee ak ni ko wootee ne na ci ñëpp na ñëpp àndandoo maanaam te def ci seen pësteef te fas yéene fàttaliku sëñ Manar ñaanal ko a ah, ñaan yàlla yokk leeram te taas ci barke am kon nag loolu moom lu am solo la tànk yi ngeen dox itam ak barabi ziarikaay yi ngeen ñëw ci dëkk bi muy néeg bii nga xamante bii ne mi ngi fii ci kër Mandoumbe néeg bu sëñ Touba am fukki guddi ak ñeent doon nemmiku si kàggu Mandoumbe xër yaakaar naa boo doon wër barab yu baree bari fu mu am fukki guddee ñeent di jàng alxuraan ak julli bëriwul kon nag ñun ñi ko am nañ ko ñun ñi ko am nañ ko téye te xam ko bu baax a baax jàkka joo xam ne tam wax nañ ne sëñ bee ko rëdd ak barab yii nga xam ne fii la sëñ Samba Assou tëdd euh, sëñ Makhtar Samba mi fekk si woon kooku tëdd fa sëñ Moud Abib sëñ sàmba xëri daam ak kilifa yu baax yëpp tëdd ci barab yii ak askan yi nga xam ne nag ñoo aju ci mbo ñoo aju ci Kër Mandoumbe mooy askan yi bu ma askan yi aju ci Kër Mandoumbe ñi xam danañ xam fi may waxee ndax Kër bi askan wu am na ko askan wu rek Kër bi xale am na ko xam nga lu ko waraloon dañoo sanc dëkk bi doon ay sëriñ di jaamu yàlla fu waay mën a jóge soo ñëwee ñu dalal la jox la ay tool ànd ak yow ci liggéey bi te duñ la teg daray coona duñ la teg duñ la teg lenn loo xam ne tam lu lay sonal la moo waral dëkk bi mel nii mu mel nga xam ne askan woo soxla am na fi sant wu ne it am na fi ñooñee nag nañ xam ne ba Mandoumbe xër yi gor gor dëkk bi ñu ci ëpp ñoo seeni maama ko àndoon kon nag loolu day day war waral ñun ndaw ñi ñu gën a boole suñu bopp nekk benn sëñ baarakat nii mu tàmbalee yàlla na gën a jëm kanam ñëw gii mu ñëw ci dëkk bi ak bis bii mu wootee sëñ Manar te Daaru Minam ñu ñu dem a dem ba sëñ bi joxe ndigal itam yàlla def ñu bis bi ñu am bis bu rëy fii ci Kër bi te nee na itam loolu itam day tàmbalee ci biir rek waaye booboo ngi ñëw kon nag ñun ñëpp nañ ko gën a bàyyi xel te fas yéenee góor-góor ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey te wattandiku tooñ te lépp lu suñu yoon nekkul ñu maandu ca waaye dëkk bi daal a ngi nii euh, mënees na fee jaamu yàlla mënees na fee liggéey ah te soriwul tuubaay itam foo xam ne euh, foo mën a jógee ci réew mi balaa mat waxtu wala ay minute nga yegg si loolu yombut ndax dëkk bu mag bee nga xam ne kat moom ñun ñëpp moom lañ yaakaar léeg-léeg ab sëriñ xëyee fa dox lu ma 200 kilomètres door a dem ci daaraam te diggante feeg Touba 40 kilomètres la wala 45 kilomètres kon nag loolu wax dëgg yàlla tubaarkàlla ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. sama digg ak moom day ma xàmmee ba dëgër daal. li ñuy tàggoo bariwut ndax euh, fu muy tukki noo ko daa am bu dee ci dëkk dëkkaan yi wër kër mënu bi eh, damay wax takkal watiir bi nu dem waaye xam naa ne daal moom yonent yi daal xaw ma fekkee ma seen jamono wooye ku gën xam naa yàlla sag ko moom loolu daal naa ko waat yërmande ji mu amoon ci doomi aadama moom moom laa bëgg nu waxtaanee ko ndax toolam boobu newoon ci ci ci nga xam ci kër gi la tàmbalee jëm soowu da def bu nawetee rek ngàll googu dañoo bari woon jur lool bu nawetee ñoom ñëpp génn seen xar yeeg bay ñu lekk am bés mooy man de dama bëgg nga ma sama sama tokkoor bi ma amoon kat sama tool bi ni ko bay yàqee ma ne ko mën naa ko wattu de waaye du ma jàpp kenn nga ne baal ko de moom mu ne ah waaw baax ku ma jàpp rek bu ñëwee sëñ bi ne ko ah daa jàpp samay xar dama bëgg ku ma dimbali ah ngóor si kat dañoo di am lu liggéey woon kon nag ñaata la wax mu ne nangam mu ne sëñ bi daal lampoosam fay moom ci boppam itam xam naa nun si kër gi ñëpp xam nañ ko ci moom lépp lu ne sam xel nga di ko ko bëgg a wax bala nga ko wax mu wax la ko lépp loo bëgg nga xay moom li moom sa yitte dëgg la ma boo ñëwee toog fi moom bala nga ko wax rek mooy ah nangam de xanaa yitte woo nga ne ko waaw waaw yaakaar naa ko de eh, lépp looy def te di ko nëbb itam dana la ko wax ci kersa te dana ko xam te kenn du ko ko wax xanaa yàlla ak koy wax ndax man daanaa def yëf yu jubadi yoo xam moo ko defee damay woo ne ma ah, dëkk de dëkk xam nga jamono yooyu euh, dina doon waaw Samb Diouf mi daal maasee la qualité yooyu bu bu muy yi tux day bàyyi ba gudd dem ba sori ba génn dëkk bi am bis mu woo mu def ay fan lañ ko rek mu woo ma ne ma dëkk bi dégg naa gone yaa ngi jàggam tux mbaa doo ci bokk mu ne ko déedéet ah bu ci bokk de ndax sëñ Tuubaa mi yaakaar kat nee na ñooñu jëfandikoo po nag ñuy jëfandikoo nit kat moom yomal xeex bu ca mënee dara du leen defal dara loolu xam naa ne musuma man daal sëñ Manaar mun maa wax ci yàgg nañ doo yàgg nañ doo xam naa ne réew moom fu ab ñu ma ay jubóo di ko am bu dee ay taalibi nag lu si taalibe ma ci yemale am xamee wutub taalibi nag ak kutub taalibi ci li muy def su ca ay xuloo amee ci ci dëkk rek day xëy dama taal takkal takkal watiir bi mu dëkk sànga mu àggee mu daal leen xool leen waaye bala mu foo jubóo rek ñu jubóo jubóo boo xaye moom kenn moom bu rafet lay doon loolu moom liñ ko def kenn kenn kenn xamu tool xëy rek dama takkal watiir bi ma takk watiir bi ñu dem ci dëkk diw diw ko laa dégg moom seen diggante daa neexut leen a defaree ji waaw loolu de moom li mu koy lool bari ma waaye sëñ ma daal man daal wax dëgg yàlla li ma xam ci moom bari na waaye xaw ci moom lenn lenn loo xam ne nii luñ mën a xebati kilifa la mosu koo def mosu koo wax man daal xaw mosumaa xam daal bu def yenn yenn yenn fanaan nan néeg ba tàyyi baak moom bu dul benn du ñaar waaye heure bu may yewoo rek maa fekk muy bind te di ni la moom du ko def ñëpp la amaloon jàmm ñëpp ku daa ganes sëñ Fallou mii sëñ Bachirou sëñ mboolem sëñ Touba jur daal taama fekk seen seen jamono daa nga ko gone am ko ñaari fan baa ñett sëñ Mourtala moom dafaa dëkkoon ba far may ko soxna xëy la meloon ñu baax ñëpp itam noonu la defoon ak ñoom nag njabootu sëñ Touba moom ñëpp ko daa gane si ngan gi bu ma saa ñëw kenn du xa ngan gu ñuy neexee kenn du ko mos a gis te ku dem ba ñëw wala nga am weer keneen ñëw moom noonu la dëkke woon waa kër sëñ Tuubaa ñëpp sëñ Cheikh Mbacke sëñ Abdoulaat mi soxna Ngaan mi ba ko Ceerno Jaxate jël sëñ Abdoulaat mi moo ko jël si loolu mu fa la ma fekk waaye eh, waa kër sëñ Tuubaa yi buñ masaa ñëw fii màggal itam kenn ku ci ne day dem fi yow siyaaral sëñ Abdou Khadr mi daa am benn bis ma eh, fekk benn eh, eh, bëkk néega boo xam sama xarit lool am sa tuggéey ma ne ko man daal sami dama bëgg ko siyaar siyaar bu neex ma ne da ngay bàyyi bañ julligee ba nopp ba mu defee labaraatam boo ñëwee rek naan dem bu ñëwee maa ngi ko fekk mu toog ñaar nit rek monsieur daal koy nuyu na ko ah, kii de sëñ Manar Diop lañ ko tuddee moo ko yar waaye nee na la sëñ Abdou baax di ko wax ba may bëgg a yuux <laughs> di ko wax ak a waxaa rek ak a sell ak a baax kooke ak a sell ak a baax eh, daa mujj yaar rek rek rek di ma rek waaye sëñ bi noor li ñu ne mel bëriwul de amutut amut ku muy bañ ñi ko gën a bañ ci kër bu numbi nga xëye noonu ñëwoon ci kër gi xam na ko lam leen di defal du ko defal ñi nga xam ne ni ñu ay taalibeem la lu muy séddale ñoo cay ëppale lu muy lu muy wax ci yu moom lu ñoom la koy waxal loolu daal laa xam ci moom mën daal ku mel ne ma mosuma koo gis xanaa ñu gën góor góorgóorlu nag te jàpp ci bu baax a baax nag mm, sancaat ko nag eh, kenn ko ne fexe fa am màkkaan ndax daal kër kër mën bee dëkk boobee day E, Touba de moom daa amatum dend waaye kër moom be day dëkk bu nemelan ci dëkk ba ma fay dëkk amut dëkk bu na toll booba te doo fa gis fu mu wax boo ko bëggee da nga ko wuti ji waaye doo ko fa gis alxuraan itam waxtu wu ne bi day woote ca ca ca ca jàkka ja ñu di ko jàkk waxtu wu dañ koy jàkk xam naa daal daal laa xam ci moom xam naa daal lu mel daal mosuma koo gis moom wax dëgg yàlla mosuma koo gis ci doomu yi am goo xaye moom kenn mosu koo am moom loolu moom xam ne kii ab soppeem la ba mbaa moom daal ku bañ daal moom moo man xaw ma ko ndax eh, suñu diggante diggante bu lee la kër moom bi xam nga amoon nañ fi ay jafe-jafe te la ko waraloon Euh, tooli waa ña ngeen a dëkk Ali Thiey la la la Baye Mbodj Baye sama baay la bokkuñu benn baay waa ay doomi baay la boobu mooy borom dëkk ba ne ne ay toorama ah. waa ña ngeen leen ah noonu suñuy toora ñuy soowoo ca bokkuloo ci ñu ñëw sëñ ma naar sëñ ma naar ne ah tool yi di wax dëgg yàlla waa ñeme ne ko ko moom de te booba bu li cëpp sëñ mën naa rëy seen sëriñ mu ne ko boo àndeeg waa ña ngeen ñi de dinaa wax bu leen ñëpp ñu xàcc ci yaw mu ne ko ah, ba boo de waaye waaye waaye toole moom waa ña ngeen ko moom ñu daal cay soow waa bu bu leen moom xam nga ay sàmm lañu xamuñu dara man fa laa dëkk waaye ñoom ñëpp xamuñu dara ñëpp xàcc sans baay ak baay mataar juuf ñoo ca desoon te boobu daanaka bu leen gépp sëñ mën a leen yàgg ginnaaw bi bañ demee nag ba mu yàgg ba xam ne eh, soo wane coow la ba coow la eh, jeex eh, Baye Mbodj di daa wax man de sëñ mën naa tooñ naa tooñ boo xam ne nii ndax liñ doon soowoo de maa tooñoon ay ay ay ay rambaaj ak rek a doxoon sama digg ak moom wax na ma ko ba tàyyi fii quoi loolu de yëpp saytaan la rek. waaye boo ma saa jëmbu leen baa nga jóge fa nuyul ma sëñ Mbodj la lay wax <laughs> sama baay ak baay ma taal ju bi nga xayma ay taalim sax du duñ tuddee wax nuyul ñu mu def waaye sama baay ak baay ma taal ju sax nga xayma booba ñoo fay di ay taalibeem di leen tudd sax xayma layoon nañ ko ati ati ati at. bañ bañ sisement ya ñu mujj ko ñu ne sëñ Manar laman gi yaa ko moom ñii nag ñoo goroon fii waaye laman gi yaa ko moom waaye de deewut sëñ Manar da koo daan ma booj bu dëkk baangoo yore ko na nga ko yore <laughs> ku mel ni moom musuma <laughs>